président Macky Sall lu toll ci quatre-vingts yoo xam ne danañu ko teg ngir nag recruter maanaam lu toll si juróom benn fukk ak juróomi junni ci ay ndaw njiitu réew mi di président Macky Sall nee na lu toll ci quatre cent cinquante milliards ci ay Sall ci discours boobee wax na ak nga xam ne ñooy armée bi ndax nee na dina yokk li nga xam ne mooy seen équipement ba pare seen nekkin ak seen dundin ñi nga xam ne ñooy militaires yi danañu ko soppar ñi ba mu gën a ñonga njiitu réew mi di président Macky Sall ci réew mi quotidien ak discours ba daat nay wax ne lu toll si juróomi junni ci ay jàngalekat danañu leen a recruter yéenekaay gi nee na en tout mooy discours boobi njiitu mi di président Macky Sall njaay cekke na ba doyal ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi maanaam ma ngi leen di góndi ma ngi leen di bàpp waaye nag ma ngi piis di rogo jeeru ñi nga xam ne ñooy secteur privé bi ndax nee ñi nga xam ne ñooy secteur privé bi maanaam mënuñoo ñàkk a dugal seen loxo ci li nga xam ne mooy doxinu réew mi rawatina lu tax ndaw ñi mën a am liggéey ba tey ci a lay doxee ndax mënuñoo nekk ci réew moo xam ne ñi nga xam ne ñooy secteur privé bi xam ne ñu baree bari fa la ñuy liggéeyee secteur privé boo xam ne maanaam la yàlla xam doy na Assane Samb ne Macky Sall nag lii nga xamante ni daal maanaam ma ngi koy mébét su bëggee mu sotti il faut mu doole ñi nga xam ne maanaam ñooy secteur privé bi yéen kaay gi nee na ba tey moom Assane Samb nee na Sénégal dafa bëri ay jafe-jafe ndax li nga xam ne mooy dund gi cher na loola loyer bi cher na loola transport bi cher na loola carburant bi na loola maanaam feebar faju na loola produit yu baree bari dafa mi cher na loola facture électricité bi cher na loola gaz bi cher na loola maanaam réew mii di Sénégal bëri wut loo xamante ni cheru fii askan wi seen dund gi jamono ji maanaam dund ko weer a yaan la yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na discours bi njiit di président Macky Sall dafa dellu si bu baax a jëm ci bodd xante gi nga xam ne ñoo ngi koy boddi ñi ak di xasante ji lu jëm ci wàllum xeet nee na loolee a ñàkk Sénégal benn bopp la kenn discours bii nga xam ne Macky def na ko maanaam discours bu yaakaaru la ba nag discours la boo xam ne mën nañoo jàpp ne xel mën naa dal njiitu mi di Macky Sall yi daal ma ngi neexal xale yi Macky Sall daal yi ma ngi neexal xale yi yéen a gii di la sax nee na mi di président Macky Sall en diggante politique d'emploi ak promesse électorale moom la ñu gis ci discours Macky bi yéen a gii di Vox Populi ñu xëy fekk fa Guy Marius Sagna nee na exclusif nee na discours bi nga xam ne Macky Sall def na ko discours ba bëri na ay faute lool lool loola ndax ay faute yoo xamante ni nemmeeku nañ ko ci lu jëm ci grammaire ay faute yoo xam ne nemmeeku nañ ko ci lu jëm ci conjugaison ay faute yoo xam ne nemmeeku nañ ko ci lu jëm ci orthographe yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu MEDES mouvement des entreprises du Sénégal organisé na ñaar fukk ak benneelu assemblée générale ci teewaayu ministre bi ñu dénk wàllum jënd meeg njaay mi Aminata Assome Diatta la nga xam ne moom la ñu fa doon waxtaane bokk na si yi feeñ ki nga xam ne mooy président Mbagnick Diop daan wax ne MEDES jamono ji nag daan bu yàgg-yàgg ci ay proposition yoo xam ne maanaam yu fës la teg ay jéego yoo xam ne yu bees tàq la innovation ak créativité moom président Mbagnick Diop daan wax ne liggéeyu MEDES ak proposition yi nga xam xam ne ma ngi koy def maanaam génn na Sénégal te nga xam ne moo koy firnde la prix Nelson Mandela African Leadership Award labelu MEDES jamono ji nag dix grandes capitales occidentales ñoo ngi ci président ba ñu jop ndaje moomee nag daan na rafetlu bu baax a baax maanaam partenariat privé gi nga xamante ni jamono ji maanaam daan nañu koy taxawal seen feuille de route bokk na ci maanaam ay xalaat yu yees ay pexe yoo xam ne danañu ko naal waaye nag lépp aju ci ay domaines yu bari te wuute domaine économie de la connaissance numérique économie verte dynamiser renforcer la compétitivité de notre pays yéen a gi di réew mi quotidien ca ndaje moom nag Aminata Assome Diatta daan nay woo ñi nga xam ne ñooy secteur privé bi ngir nag ñu dugal seen loxo bu baax a baax ci projet yi nga xam ne état bu Sénégal daan na koy teg ndax am na lu toll si juróom-ñett fukk ak benn ci ay marché yoo xam ne état bi war na koo yeesalaat ak lu toll ci téeméeri entrepôt moderne yéen a gi di source nee na Macky Sall bi ma ngi li nga xam ne mooy loi bi ndax benn defuñu réunion conseil supérieur du yoon Macky Sall ma ngi violé loi bi la Tribune ñu xëy fekk fa Bougane Gueye Dany nee juróom-ñeenti at def na ko ci bopp réewum Sénégal lu mu ca lijjantiwul maanaam mënu ko lijjanti ñetti at yéenekaay gi di Stades nee na de finale Ligue des Champions tey jii yomb diggante Real Madrid ak Liverpool yéenekaay gi di Sunu Lamb nee na bi nga xam ne moo dox diggante Eumeu Sène ak de Guiers numéro 2 combat boo xam ne soof na Sénégalais